Canal Plus nag lépp lu xeetook tàggat yaram ñoo ci mën rawatina football kon ku jëndagul seenub décodeur li koy ñaan moo di mu dem wuuti ko léegi ki ko am te abonné woon tamit li ñu koy ñaan moo di mu daw léegi abonné ji ndax Coupe d'Afrique bi ñuy dund jamono jii du fenn fudul ca group Canal Plus rawatina Canal Plus CAN que quelques jours pour profiter du décodeur à 3000 francs avec installation et parabole offerte. loo leen di xaar profitez de 100% des matchs et 100% des experts sur votre chaîne 100% Canal Plus CAN fii la CAN bi xewee fii la supporter neexee c'est maintenant ou jamais votre décodeur à francs seulement courez vite en boutique. ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéene kay ñancoo Sadio Mané la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Coupe d'Afrique bii ñu génn nag bu yàggut ñun waa Sénégal moo nekkoon juróomeelu yoon équipe nationale bu Sénégal di ca dem di ànd ak ñancoo Sadio Mané loolee sax journal bi def na ci am njàngat laaj ci ab expert maanaam ku xam màcc ci wàllu football nee na ñancoo Sadio Mané de Coupe d'Afrique bii ñu génn bu yàggut dafa am lum ca manqué ñu ne ko mu di lan muy doole ji mu amoon ci wàllu dribble loole ñancoo Sadio maane da koo ñàkk moom ñancoo da doon jàkkaarloo ak yow ne la fii lay jaar par force jaar fa dem doo ci mën dara loolee da koo ñàkk waaye nee na Coupe d'Afrique bii weesu nag ñancoo Sadio maane daf ca doon dem ak kelam maanaam demul ak doole xelam la doon jëfandikoo nee na match yu ñu jot a jongante ca Coupe d'Afrique boobee nag mu toll ci ñeent match bi mu ca gën a dox moo di bi ñuy jàkkaarloo ak Côte naam Côte d'Ivoire éliminé boobee ci la ñancoo Sadio Mané gën a dox loole nag du samay kàddu kàddu expert bi séq waxtaan ak journal bii di stade yéenekaay la waaye noppeegul ba léegi nee na beneen bi moo di système bi nga xam ne équipe nationale bi moom la doon taxawee loole arrangé wul ñancoo Sadio Mané ci fàttali Coupe d'Afrique bii ñu jógee bu yàggul nag ñancoo Sadio maane dugal na ca benn bi amal ca ñetti passe décisive loolee nag des naa baax ci ñancoo bi ñu xam kon nañu ko ñaanal beneen bii di ñëw mu gën caa doxal waaye sournal bi tamit ñëw na ci maître Augustin sengor moom nag mooy président fédération sénégalaise bu football moom nee na séq na waxtaan ak Aliou Cissé lan la ñu waxtaanee loolee waxu ko ci sournal bi waaye moom maître Augustin Senghor nee na séq nañu waxtaan bu yaatu moom ak Aliou sournal bi tamit ñëw na ci sunu mbokku Guinée Conakry yi ñoom démb dañ doon jàkkaarloo ak RD Congo mu soxaloon quart de final match boobee nag RD moo ca am ndam ñetti bal ci benn kon kat waa Guinée bëgg-bëgg bi ñu amoon ba léegi matalaguñu ko mu di lan jógee ci quart de finale dem ci demi-finale coupe d'Afrique loole mosuñu ko amal ci seenu taarix journal bi tamit fàttewul équipe nationale beach soccer bi ñoom démbale leen ministre des sports di Lat Diop jébbal raaye réew mi ngir ñu dem ci réewu Émirats arabes unis jongante ji ak seeni nawle coupe du monde bi foofee lay amee jébbal nañu leen raaye réew mi démb bëgg-bëgg bi équipe nationale beach soccer bi am nag moo di yeno raaya bi indi ko ci réew mi loolee lu mën a nekk la kon nañu leen ñaanal waaye journal bi tamit fàttewul coupe de la ligue bu Sénégal première tour bi dimanche la ñu koy jongante incha allah ñoo ngi cay xaar nag match yu nar a neex match yooyee bokk na ci laal Linguère bu Saint-Louis war na jàkkaarloo ak HL bu Rufisque beneen bi moo di Jaraaf war na jàkkaarloo ak Dakar Sacré-Cœur AS Pikine nit war na jàkkaarloo ak Njàmbur match yooyee bokk na ci ñuy xaar mu soxal premier tour coupe de la bu Sénégal bokk ci match yi nar a neex nag. ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa record yéenekaay équipe nationale bu Sénégal la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ginnaaw bi ñu toogee ci coupe d'Afrique bi nag journal bii di record yéenekaay dafa ñëw ci calendrier wu gaynde yi. at mii ñu dugg muy atum 2024 ay match yu rëy moo ngi xaar équipe nationale bu Sénégal ndax dinañu ci jongante éliminatoire mondial 2026 waaye tamit dinañu ci jongante éliminatoire coupe d'Afrique cinq waaye nag bu ñu yeggee ci weeru juin atum deux mille vingt 2024 bii ñu nekk ñaari match yu miti moo ngi xaar équipe nationale bu Sénégal ndax war nañoo jàkkaarloo ak RD Congo war nañoo jàkkaarloo tamit ak Mauritanie match yooyee ci weeru juin la ñu koy jongante waaye journal bi nee na diggante weeru juin ak novembre juróom-ñetti match yu miti moo ngi xaar équipe nationale bu Sénégal maître Augustin Senghor it mi ngi ci journal bi moom nag mi ngi wax ci équipe nationale bu Sénégal nee na naam gaaw nañoo toog ci Coupe d'Afrique bi waaye fi ñu toogoon ci Afrique foofee du ñu fa jog loole la maître Augustin Senghor xamle fa ñu nekkoon ba léegi fa la ñuy wéy di fa nekk loole la xamle moom président fédération bi. ñu jugee Sénégal wuteli France fekk fa l'équipe waa Paris le journal bi fësal ca njëkk wa démb Strasbourg la ñu doon jàkkaarlool match bi nag miti woon na lool ci ñoom ca cëppaandaw ga nag Paris moo am ndam moo tax journal bi nee na Paris de génn nañu ci waaye ndam loolee ñu am nag tax nañu defaraat seen toogaay ca bopp classement wu Ligue 1 bu France jamono jii ñoo jël pee Nice mi topp seen kaw neuf poñ la ko rawee ñoom waa Paris waaye bit yi tax ñu am ndam nañu ko sante ñii ndax Kylian Mbappé dugal na Marco Asensio it dugal na ñu am ndam lo ama am solo gën a dëggal seen bopp ca bopp classement wu Ligue 1 ba ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Star Sport waa Arsenal la surnal bi fësal ca wu njëkk wa rawatina Zinchenko ak Ben White ñoom ñaar keroog bi Arsenal di jàkkaarloo ak Nottingham Forest match boobe bi mu jeexee ñoom ñaar dañoo jàppante woon xeex-xeex bu ndaw loole nag ki ca wax moo di Mikel Arteta mi leen di tàggat ndax gaañ dañu ko ca ne ko ñaar ñi moom xeex bi nu demee mu ne ñoom de seen deret moo tàngoon képp moo tax ñu jàppante waaye seen diggante dara nekku ci maa ngi leen di xamal sax ni ñaar ñii ñoo bokk benn kër kon ñoom ñaar ay xarit lañu kon seen yarama tàngoon rek moo tax keroog ñu jàppante bi ñuy jàkkaarloo ak Nottingham Forest la woon ba match boobee jeexee ñoom ñaar dañoo jàppante woon waaye Mikel Arteta yemul ci loolee nee na ñoom ñaar de dañoo doon ay xarit waaye li ma leen di waaje wax nii sax dina doy waar ngeen baal ma man tamit ci kàddu gi nee na ñaari gone yi ay soxna sax ñoo ko bokk maanaam dañuy wecco ay soxna noonee la ko Mikel Arteta waxe ngeen baal ma ci kàddu gi nee na kon seen diggante amul benn jafe-jafe seen yarama tàngoon képp moo tax ñu jàppante te lépp teguwaat na ci yoon loolee la Mikel Arteta xamle waa Liverpool it ñoo ngi ci journal bi rawatina ki leen di tàggat di yogoon club moom ay ndawam lay ñaax ne leen dimanche nag match bu mitti la ñu am bu seize heures et demi jotee dañuy fekki Arsenal nee na match boobee li ma moo di ngeen jëmbat ca ful la ñu am ndam ngir ñu topp ci sunu ginnaaw ñu mën leen a jiitoo ay poñ yokk poñ yi waaye nee na ba léegi nag jëlaguñu Premier League bi suñu ko bëggee jël faw ñu jëmbat ful la ndax dese nañu seize match maanaam fukki match ak juróom benn yoo xam ne yépp la ñu war a gagné ngir mën a dëggal sunu bopp ci bopp classement wu Premier League bi loolee loolee la yógoon club xamal ay ndawam ñu jógee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéene kaay waa Real de Madrid rawatina Rudiger le journal bi fësal ca wu njëkk wa tànkam bi de ni muy mittee jamono ji dafa jaaxal lool waa Real de Madrid naam doomu Allemagne bi amul blessure waaye day yëg mitit bu jéggi dayoo bokkam ci derbi bi war a am dimanche sax loolee wóoragul ndax jamono ji journal bi nee na munul dox sax kon nag soo moytuwul du mën a bokk ca derbi boobee waaye su fekkee nag moom Rudiger bokkul ca derbi boobee karlu Ancelotti li muy xalaat moo di ñaar ñi mu boole ci kenn ak Nacho ñu doxal muy Mendy ak Carvajal ca défense ba maa ngi xaar merengue yi sax ci commentaire yi kan ak kan ñoo war a taxaw ci défense sub Real de Madrid su fekkee Antonio Rudiger ñëwut Mendy la ñuy boole ak Nacho wala Carvajal la ñuy boole ak Nacho loole laa leen di laaj ci commentaire yi yéen merengue yi waaye journal bi tamit fàttewul waa Atlético de Madrid rawatina seen gan gii di Gabriel Paulista moom nag ab défenseur la ma nga woon ca Valence contrat jeex tàkk mu dem ca Atlético de Madrid xaatim fa contrat nee na ba léegi Atlético mën jël liga bi waaye loolee gagné match yi nekk seen kanam ngir gën a mën a neexal liga bi loolee la Gabriel Paulista xamle ñu jóge Marca yéene kaay jël AS yéene kaay Xavi mi tàggat Barcelone ak président wu Barcelone tudd Juan Laporta le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñoom ñaar nag dañoo gën a boole seen doole ngir xeex Real de Madrid loolee nag du samay kaddu kaddu journal bi la naam boole woon nañu seen doole ngir xeex Real de Madrid waaye dañ koo gën boole ñoom ñaar ñëpp ti nañu ay kàddu ki njëkk a wax moo di la porta moom li mu xamle moo di mbiru Negreira jeex na bu yàgg li tax mu des fi ba léegi moo di waa Real de Madrid ñoo nekk ci ginnaaw di soññu gaañi waaye ñun yoon setal nañu bu yàgg ñoom kay ñoo taq ndax bu yàggu dara gis nañu ñun ñëpp li xew loolee la Juan Laporta xamle fi mu daanelee rek fi la Xavi mi tàggat Barcelone yëkkatee kàddu gi nee na waa Real de Madrid dañoo bëgg a jël liga bi jël ko ci ay càcc maanaam falsifier liga bi jël ko loolee la Xavi xamle nee na bu yàggu dara sax Diego Simeone dégg ngeen li mu wax Diego Simeone nag mooy tàggat Atlético de Madrid Xavi nee na fii li fi xew lépp xam nañu ko waaye Barcelone googee tey jii bu 17h30 jotee dañuy jàkkaarloo ak Deportivo Alaves Barcelone nag jamono ji bëri nañu lool ay blessé ndax am nañu huit blessures loolee la journal bi xamle bu dee waa Real de Madrid ñoom ki leen jaaxal du kenn ku dul Rudiger Rudiger blessé wut waaye mitit bu jéggi dayoo lay yëg ca tànk ba jamono ji sax daanaka mënul dox loolee la surnal bii di aas yéene kaay le kon bokkam ci derbi bi lu ñuy seetaat lay doon. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa sport Xavi ak président wam la surnal bi fësal ca wu njëkk wo ñoom ñaar nag ñoo ngi takkal waa Real de Madrid loolee la journal bi xam le ndax président wu Barcelone. kàddu yi mu yëkkati ñagas na lool teg ko ci deru waa Real de Madrid nee na Real de Madrid de li mu nekkee dafa ñaaw lool rawatina ci seenu tele ndax Real de Madrid googe tele bi ñu yor ñu naan ko Madrid TV ñoom bu match amee arbitre bi ko war a arbitrer dañuy indi ay njuumteem di ca commentaire loolee nag mën na teg pression arbitre bi nga xam ne moo war a arbitrer seenu match te loolee jekkut jaaduwut rafetut tamit waru ñu leen a bàyyi ñuy doxalee noonee loolu la président wu Barcelone xamle nee na Real Madrid TV lu leen neex la ñu fay def fi mu daanelee rek fi la Xavi jëlee kàddu gi nee na lii de gàcce la te man xaw ma sax lu tax waa Liga bi di ko autoriser waa Real de Madrid ñu bàyyi leen ci seenub télé ñuy wax lu leen neex loole gàcce gu mag la Xavi nag moo yëkkati kàddu yooyu Barcelone googee sax tey jii bu 17h30 jotee dañuy fekki Deportivo Alaves match boobee nag li ñu ca bëgg moo di am ndam gën a deferaat seen toogaay waaye Inigo Martinez dellu si waat dafa amoon blessure bokk na ci groupe bi dina départ titulaire am du départ titulaire loolee Xavi moo yor baat bu mujj bi waaye daal moom bokk na ci groupe bi muy Inigo Martinez. ñu jugee esport jël Mundo Deportivo président Barcelone di Juan la journal bi fësal ci xët wu njëkk wa journal bi nag dafa séq ak moom waxtaan bu yaatu lool wax na ci mbiru Negreira wax na ci mbiru Real de Madrid waaye tamit fàttewul Xavi moom président bi nag li mu njëkk a xamle moo de àdduna du yàgg mukk ba mu dàq Xavi ca club boobee xanaa Xavi démissionné jugee ca club boobe waaye moom xelam dajul mu koy dàq nee na nag su fekkee Xavi jugee na fa li mu bëgg moo di wut ku ko wuutu ca club boobee mu dal ci mbir moomee wut koo xamante ni bu ñëwee ca club boobe dina leen mën a jàppale doxal nekkit ku min club boobee loolee la Juan Laporta le ci Barcelone ak Xavi waaye wax na tamit ci mbiru Negreira nee na mbir moomee jeex na bu yàgg yàgg waa Real de Madrid ñoo fi nekk rek di def lu leen neex waaye mbir moomee jeex na bu yàgg wax na tamit ci super league bi nee na super league bi nag li ñu bëgg moo di saison bii ñu dëgmal ñu commencé ko su loolee munu yemb tamit beneen saison ba cay topp ñu fexe super league bi door waaye laaj nañu ko tamit ne ko équipe bu anglais yi bokkaguñu mu ne loolee de gëna a lu ma su ma sañoon ñoom ñëpp ñu ñëw bokk ci waaye kat bu ñu bokkul ñun lu am rek loolu la ñuy league bi waaye tamit mi ngi wax ci Nike mi nga xam ne seen sponsor la xam ngeen ne mooy Barcelone yi day am Nike nee na Nike nag li mu koy fay taxul mu bari lool am na ñu fi nekk ñoo xamante ni ñoo ëpp lu ñuy fay te ñooñee kat ñu ngi woo waa Barcelone. kon bu Barcelone këye bàyyi Nike bu mu bett kenn waa Girona tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom nag ay match yu miti moo leen di fan yii. tey jii bu vingt jotee Real Sociedad la ñuy dalal bu ñu ca noppee dañuy fekki Real de Madrid ca Santiago Bernabéu bu ñu noppee ca match boobee dañuy dem fekki Athletic Bilbao kon ay match yu mitti moo leen di muy waa Girona bu Michel. ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport match bi war a am dimanche war a dox ci diggante Inter ak yuufe le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñaari coach yépp nag kenn ku ne yaa lal say palang maanaam yaa ngi lal say ndëgg sërëx muy Inzaghi mi tàggat Inter ak Maximiliano Allegri mi tàggat Juve bu dee Inter ànd ak Inzaghi moom li ñu bëgg moo di doxalee nii gone gii di Mkhitaryan ñoo ngi koy xaar ca match boobee Calhanoglu ba ca Barella ak Di Marco ñooñee noppi nañu te Inter am nañu lool yaakaar ci ñoom rawatina Inzaghi mi leen di tàggat bu dee Maximiliano Allegri moom li mu bëgg moo di gone gii tudd Marcus mu fexe càmbar ay mbiram téeréem maanaam étudier ko ndax kat da ko bëgg boole ak Rabiot waaye li mu bëgg moo di Danilo nekk ca wet ga di sàmmaale Marcus Thuram ndax gone gi dafa xaw a doy waar li mu bëgg moo di boole ko ak Rabiot teg Danilo ci wet gi ngir mu jàppale ko bu dee gone gii di Yildiz moom Maximiliano Allegri li mu bëgg moo di teg ko ci ginnaaw Vlahovic mu koy jox ay paas yu neex doomu Serbi bi di dugal kon nag ñaari coach yépp ñoo ngi lal seeni plan ngir kat bu ñu jàkkaarloo doxal ca match boobe journal bi tamit fàttewul waa AS Roma bu De Rossi ñoom altine incha allah dañuy jàkkaarloo ak Cagliari match boobee nag mën naa am gan gii di Angelino départ ca titulaire doxal bu si moom mën naa bokk ca match boobee waaye départam titulaire wóoragul waaye Angelino moom soo moytuwul dina départ titulaire doxal altine incha allah. ñu jógee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Marcus Thuram le journal bi fësal ca wu njëkk waa Inter gépp nag dañoo jàppandu ci moom ngir suba ñu am ndam bu ñuy jàkkaarloo ak Juve li tax nag ñu jëfandu ci moom moo di Marcus mi punkal dëgg la rawatina mat yu mag yi nga xam ne Inter mi koy amal ci saison bii ñu nekk gone gi mën na football mën na dugal waaye tamit day amal ay passes décisives loolee bokk na ci li tax ñu yaakaar ko lool ci saison bii ñu nekk rawatina suba Inzaghi li mu jàpp moo di gone gi moo ko yiwi suba ca San Siro bu dee Alcaraz moom di gan ci Juve mën naa am moom tamit mu football ca match boobee naam gan la waaye noppi na waaye moom nee na ki muy roy ci wàllu football maanaam idolam du kenn ku dul Cristiano Ronaldo loolee la Alcaraz Alcaraz xamle bu dee waa AC Milan moom tey jii bu 17h jotee match bu rëy moo leen di xaar Frosinone la ñuy fekki match boobee nag waa AC Milan la ñu ca bëgg moo di am ndam rawatina Pioli mi leen di tàggat